ma ma reporté ko ba heure bi di ci jéggalu na xam naa ne yéen ak ma doon xaar mais namm naa leen lool lool lool lool lool namm naa leen lool gëj nañ déggante gëj nañu gëj ngeen ma gis ci activité yu bari dama jëloon un peu de recul rek doon noppaliku waale nekk ci samay activité boo gisee nag leen boo leen gisee tey nag ma génn def live dafa am loo xam ne su ko nit waxee te li muy wax tegul fenn mu jëmee ko ci ay nit yoo xam ni lijjanti ko topp toppatoo ko dañuy leeral sama live bi Zahra Iyane Thiam laa koy tontu may nuyu bala ma koy tontu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu président Macky Sall ak soxnaam Marème Faye Sall di nuyu communauté Ndakaaru Njaay di nuyu waa mouvement des femmes yi fidèle te des ci Macky Sall mouvement des femmes de l'APR di nuyu suñuy responsable APR yi di nuyu ñi gore te des ànd ak président Macky Sall ñooñu ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa opposition yëpp di nuyu sunu waa coalition taxaw wàllu Sénégal di nuyu sunu intercoalition sàmm ak euh, sàmm sa kàddu di nuyu tamit waa euh, intercoal euh, waa ja jeeg jàmmal njariñ man mi maa leen tuddee jeeg jàmmal njariñ ndax foog naa ni buñ nee jàmm ak njariñ jeeg jàmm ak njariñ la jiitu fii lañ ko fekk muy langage goo xam ni képp kuy nit rekk doo ko déggee ni ma waxee jeeg jàmm ak njariñ di nga xam lu tax ma ni jeeg jàmm ak njariñ may nuyuwaat ñépp di la wax ni la Zahra Iyane yow foog naa ni dan laa jox lu la ëpp doole te xamoo ko ndax xam naa ni xamoo luy rolu mandataire ndax boo xamoon luy loru mandataire di nga am toute raison garder ñun ñi nga xam ne surtout man mii nga xam ni depuis 2009 ma nekk élu xam naa luy rolu mandataire ndax ba ñuy dem élection ba ci 2007 buy Idrissa Seck ba ñu bokkoon maak yow réew mi keroog ba nga bëggee nekk député tànnuñu la ca nga geddee génn réew mi kon xamante nañu maak yow bu baax te tamit xamante nañu bu baax ndax sunu ñaari baay yi ñoo bokk les frères unis de la Médina Zahra wàññi sa gàllaaj ñu jam la gis nga nit sooy wax dangay ngay wax waxi gor da nite waaye doo wax rekk pour wax yow ñëpp xam nañ ne Amadou Ba toppewoo ko lu dul intérêt liberté gi nga nga dëkk tojoo fi yow boo toogee tey de xas Macky danga da fàtte ba nu génnee seeni bagage jug ko ca mbedd ma yow bu du woon ma Macky Sall doo tekki dara ndax dangaa dem bokk ca coalition 2012 mu jàppale la jox la sa cër ba mu mag tey loo am gannaaw yàlla président Macky Sall la yow foo foo taxaw rek ba nit ñi mën laa xool rek gannaaw yàlla ak président Macky la waaw tey ngeen meuna xass Macky Sall ba ngeen ko woré waw ko say non di sang do set waye non gogu ngeen wax yeena ko wutal sen bop ndax alal alal na la mak alal magé dara du la fëq waaye boo juddoo ci wala kana alal dapla, ku ñew dalay yobale ndax intérêt nga ko toppee eh. yow xanaa tey nga ànd ak mag eh, Amadou ah, Ba yaa fàtte ko bañ ñu defee charge de mission di ñu fay cent cinquante mille sa wax ñaaw ya nga waxoon ba ma génn xanaa yow tey nga wax yow tey nga faral Amadou ah, Ba dama lay wax Tarzan di la wax say greffage yu yu ñàmpe ci ministre ci directrice xanaa tey nga ànd ak waaw waaw di nga ànd ak Amadou Ba ndax Macky Sall wàcc na te comme intérêt nga ko toppoon muy alal Amadou ngeen toppee alal waaye Amadou moomu képp ku ko topp rek noonu démbam nga tey jii boo ànd ak moom intérêt moo tax ak bañ a xiif bañ a mar waaye bëggoo leen ko te bala koo xam bal élection yi paase ba mu gis ni la mu yaakaaroon ni dana ko am ci député amu ko incha Amadou moo la gën a xam li xew yow dangay ngay xaste waroo xaste Zahra yow mandataire nga yéen boo leen doxaloon dëkk doo leen jël jeton ba ngeen jëlee jeton la war dugg waaye comme nag waa APR dañoo am ñu ñu jiital ñoom lañu jël teg leen boolewuñ ñu ci ñun ñi nga xam ne danoo rodee ci élection rode ci coalition rode ci investiture ak defar dossier buñ ñu bu ñu xamoon loolu boole ñu tax ndax dañoo am expérience ndax yàgg confectionner des listes li may wax nag mooy ku la tooñul bu ko tooñ dañoo ànd def coalition def intercoalition mu am yu bëri yu ci xew ñun bu ñu waxul bu leen wax dañoo ànd ak yéen intercoalition ngeen def liste Dakar dugal ci waa taxaw Dakar ak coalition jam ni ñu koy waxatee sàmm sa kàddu ñun ñu am benn député muy Mame ngay job ngeen dugal ci Bamba Fall ñu yaakaar ne fa ngeen ni yam ngeen def seen liste boobu département de Dakar te jël ngeen seeni nit ba pare dugal ci sunuy biir liste waxal li am ñun bu nu waxul yéen waroo leen wax ndax boo leen doon doxal dëkk doo leen jël jeton dem ba ci DGE ngeen dugal wor wor wor ñi ngeen àndaloon ñëpp def seen liste majoritaire def seen liste départementale jiital Moussa Sy Bamba Fall lan lay wut kon ci ñun te Bamba Fall ànd ak président mag euh, Amadou Ba Zahra gis nga nit sooy wax xamal looy wax waaye bul xam luñ lay tontu yéen sunu liste yépp ngeen yàq anamu Géejawaay Aliou Sall moo fa nekk ak Néné Fatoumata Tall te lépp loo leen def rek wor ngeen ci jiital àndoo leen kenn intercoalition ci dëgg ndax boobu yéen a ngi xool nan ngeen ñuy rendee mais ndax ngeen seen bopp sénégalais kenn waaye ña ca jàppoon ñëpp ñoo xeex tey ba Amadou Ba am lii 34 pour cent yi genn gi yëpp APR la moo tax ba mu ba mu paasee genn wàll ga yëpp dem toppi ko kon ñun suñu waxulee waroo leen wax nga ni waa takku wàllu ñun bëgguñu woon ànd bi bu ñu bëggul woon ànd bi ay guddi responsable bi dinañ fanaanee wax ah am na loo xam ne nag rafetul man ba may défendre Amadou Ba kenn défendre ko ba may xeexal Amadou Ba kenn xeexalu ko iñaanewu ma ko soxoreewu ma ko defuma dara lu bon jëme ci moom barke salaatul faatiha bu wor di am kay ci wor googu ca moom moo mën a jóge te li tax mu wor ma du du ma ko wax ndax moom xam na ko man xam naa ko lii nga wax yépp accusé amoo ci lu la leer demal nga waxtaan ak sa leader bala ngay génn di wax boo demee nga laaj ko ni ko lu tax mu bloqué ma whatsapp la waral whatsapp ba mu bloqué ma mooy waxu cour suprême beeg waxu leneen ak leneen te boobu xewagul woon c'était en deux mille vingt deux boobu coow li yeggseegul boo amee looy wax na ko xam àddina bi nag nit ku ne ànd train la day yegg ci arrêt nit wàcc ñeneen yéeg waaye dama lay wax ni la ñun amuñu jotu xas nee nga waa APR danoo sosaloon amadu Ba kan moo sosal Amadou Ba waa APR mën nañoo sosal Amadou Ba pare wëlbati ko campagnal ko Amadou Ba ka ka accusé du waa APR Karim Wade ko accusé wax lan moo ci yoon waa APR lii mënoon ngeen ko wax euh, ca élection ya présidentielle yi bu keroogee di ngeen doon xool ndax kenn dina topp Amadou Ba kon doo leen bàyyi ba jaan ba jàll ngeen topp ci watat bi di dóor am na loo xam ne rafetul ñun ñii ñëpp ay nawle lañu te politique jaru xiiroo jaru ŋaayoo ndagam ñi noonoo démb ñoo mën a ànd tey politique day biir du biir waaye day wasin na rafet ñun bu ñu génnul wax yéen amoo leen pour génn wax mag nag bu amee sutura moo ko may boppam nañu def nànk def leen nànk askan bi dofuñu kenn mënu leen lëre ci ay wax kenn mënu leen lëre ci leneen li ma lay wax mooy nanga bàyyi président Macky Sall na nga bàyyi ñu ànd ak président gore toog ci président Macky Sall ndax gor moo dul wor foo fekk kat jam la te ki sa ressemble sa semble lima lay wax dal moy dañu bëgg ngeen may ñu jam ngeen wuti ñu wuti ñu xol nak sénégalais ñan la ni jox confiance fi de lu fi way man ak lu fi way def rek yene président Macky Sall la programme PSM e la mu joxe instruction nit ñi exécuter kon tey jii xaste warul kenn dañoo waxoon ne dañuy def intercoalition ñu dem ba ci biir ngeen wor continuer leen di wor ñu xool ku wor ren ba déwén mu jig la dañ la ko ji man duma ma jéggi baat Amadou Ba duma ko jéggi baat ndax sama freer la am na fu nu jaan ci loolu lay sàmm waaye yow laay waxal sax yamal ci kuddu ñu roof la ci gayet

kon mayal nit ñi jàmm Amadou nag dama ko yërëm ndax ñi ko topp ñëpp mooy ñi nga xam ne seen base yi dañ leen a jéppi rejeté leen mooy médiocrité bi ñi nga xam ni ba ñu waree def nekk ci nguur defuñu ñuy dem di làqatu ci ginnaawam pour jël ci weccitam di ko nax te nax gi kañ lay leer la le set novembre incha allah bu gersoo gisatul kenn ci ginnaawam comme nañ ko defoon ca présidentielle ba muy doog a jeex loolu moo koy dalaat may wax rek ni politik na ku ne far fa nga far na ku ne xeexal fa nga fa nga ka nga ka nga ka nga war a xeexal àddina bi sénégalais yi dofuñu président Macky Sall kenn mënu ko tilimal APR am na amoon nañu baax amoon nañu bon loolu kenn weddiwu ko APR am na ñu baax am na ñu bon loolu kenn weddiwu ko waaye foog naa ni ñi bon ñëpp génn nañ APR dama leen wax ni ñu ragalun fu ñu jëm de terrain la ñu ñeme ñun fu ñu dëkk xam nañ ñu fu ñu dëkk rek ñun xam nañ ñu miin nañ ñu xam nañ lu ñu mën xam nañ lu ñu mënul ñun travail de terrain la ñuy def de dënd ñu kenn fay ñu kenn suñu base lu ñu fa def ñoko ko suñu bop ba am ko kon dama lay wax Zahra yan cham sos bi ngay wax ne dañ dañ leen sosol ken sosolu leen yéen trahir ñu wax le ngay ngay yeen ki sa saamoor fa sa mus yéen ñu trahir da ni dem inter coalition dem ba bi jëli sa ton bu do li ngay wax deug la benn jeton moo waroon am muy intercoalition bi waaye doo leen dem jëli jeton ban jox leen numéro war dugg na ngeen ni bu kenn wax fi kenn soosu fi lu ne fàng kenn du ko jeex yow nag dañu bëgg nga tëj sa gémmiñ googu yow Zahra Amadou lu koy yàqal ci yow moomu la nar a jógee barke Cheikhou Tidiane maa wax lii ndax doo gor doo wax dëgg doo doxal dëgg te xamoo sa bopp waaye nag li ci kanam raw bët xam nga lu ñuy àtte élection yi moo ñu àtte ñun ñëpp lu waay rendi nag sa loxo lay naat nañ jëm mais li ma la wax mooy bàyyi la APR bàyyi euh, Macky président Macky Sall amoo loo ko mën a waxal président Macky Sall yéen ñu seen coalition ku ca tedd rek ku ci sol pirxa ku ci takki or ku ci yori oto ku ku jëndi kër ku ci am ay kër ku ci tabax ku ci yor lu ne gàññit ci barke Macky Sall la dina leen naqar yi ba ngeen dee ndax tey loo leen doon moom la da leen a fekk ci ay pax fekk leen tekk leen dara mu defar leen ba ngeen nekk ay nit tey mënoo leen ko xas mënoo leen ko waxal lu ñaaw parce que ay lâche ngeen da ngeen koo trahir kon may leen ko jàmm ba ngeen ko trahiree dem fa leen gënal bàyyi leen ko moom mi ngi liggéey liggéeyam te incha allah ci ndomba tank, ak ci nguur ak ci responsabilité ci lay dundu ba dé inshallah té li ci kanam rawli bot, yeen ñoñu daw ci gannaaw Amadou Ba su président Macky Sall perte pouvoir ñom ñoñu la ndax taluñu won liggéey mu leen ñu taxaw wax yeen ñun duñ seen ennemi waxta wax leen ak jomaay yeen ñoñu dem ci gannaaw Amadou Ba wuy ji leen xaar leen seeni dossier am ngeen lu leen doy ni ni lu leen doy ni euh, ni ñu koy waxte euh, pèlerinage à la yéen dem leen wuy ji préparé leen seeni bagage te xam ne audition yi ngi ñëw ci yéen kenn doo leen rëcc te kenn du leen bàyyi yéen loo leen ñu mën a wax rek dañuy tëj sunu gémmiñ li ñu naan laisse mouton pisser tabaski viendra naa ngi nuyu mouvement des femmes yëpp bayiwuma ci kenn di leen wax rek à tout à l'heure képp koo xam ni soppay président Macky Sall la ngay jigéen jigéen ju am ngor jigéen ju baax jigéen ju am fulla am fayda am personnalité am dignité ñi ngi lay woo siège APR 16 heures nga ñëw ñu waxtaan xool nan la ni ànd président Macky Sall campagne ñun ndakaaru fuñ ci daagu dañuy ubbil ndax suñuy mbokk fi ne ñun campagne ñu toog ci fauteuil di xaar ñu servir ñu plateau d'argent base ñun dañoo miin base bi base bi xam ñu ndakaaru xam ñu suñuy ndey juddee fi suñuy baay juddoo fi ñu juddoo fi kon du ñuy doxandéem may wax rek daal à tout à siège u APR képp ku képp ku ànd ak président Macky Sall ngay jigéen woo nañ la képp koy jigéen ngay nitu président Macky Sall nga ànd ak président Macky Sall sopp président Macky Sall bëgg président Macky Sall reconnaître njàmbaaram ak lépp lu mu mën a def ci Sénégal gi nga bëcc ñu ngi lay woo ca siège ba Macky Sall kenn mënu koo tilimal ba mukk mukk mukk ndax moo soppi xar kanamu Sénégal defar tali yi fii ba Fuuta tali bi dani gongo fii ba tàmba tali bi dani gongo fii ba Kolda tali bi dañu gongo macha allah fii ba Ziguinchor tali bi dañu gongo fii ba Louga fii ba Ndar tali yëpp ratax bann macha allah accident yi li ko fii nii ñëpp xam nañu ko fétiche yu bëri yi tëggub bool yeeg lu ne fii indi accident yi ba jinne yi wàlli si waaye Macky Sall moo defar Sénégal ba tey mu neex a xool def fi nag lu ne loo xam ni lu ne fàng kenn du ko jeex may wax rek ni maa leen ni nuyu di leen sant Zahra Iyane Thiam laa doon tontu te su ma lay tontu man du ma jéggi Amadou Ba xam na man xam naa yàlla xam na jógee la àddina bi la nda Sénégal yàqu social jeex nit ñi di nit ñi nit ñi changé ay numéro ñenn ñi daw waa yow gàcce nga alaama Marème lu baax lu ne def nga ko fi yóbbu nga askan bi yëpp màkk yóbbu malade yëpp ñu faju ji daan dem principal ak la daan teg di fay dialyse yi ak CTO di jënd ordonnance yi di fay opération yi di joxe sukkaru koor yi di joxe xaru tabaski yi di dem guddi di làqatu di dem ci biir njaboot yi di leen defal lu baax Marème fa yaa foofu foo nekk yàlla na la fa yiw yàlla fekk yàgg président Macky Sall li ngeen def ci Sénégal gi kenn mënu koo yàq kenn mënu koo fay ndax ba ngeen fi jógee ba léegi la nit ñi torox te seen askan wi li ñuy dund duñu ko wax président Macky Sall courant ba nga doon dugal ay milliards ba tey jii xuy kamej amatul woon xuy kamej commencé na lépp fi mu ne ku yuuxu dangaa saalit waaye fépp lay baxe mitti na nag waaye nag ñu ngi ñaan yàlla sunu borom mu dolli ñu sutura ba nga dellu waat ci senegaal gi ba jëlaat nguur gi 2029 ba dekkalaat ñu ndax fi mu nekk nii ñi ngi sukuraat ku waxul rekk waxoo la neex ñépp ko yëg nag couche yëpp waaye nag yal na leen yàlla jàmmal yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla guddal seen fan tey yàlla làq leen fa yàq yeggul incha allah victoire rek ngay am may wax ni ele campagne bu jotee dinaa dellu si waat ñu gën a waxtaan maa leen nuyu di leen ziar jërëjëf